man maa ngi tudd Xaalim Mbay waaw doon taxi man maa ngi nuyu ñëpp nag bàyyiwuma kenn waaw maa ngi nuyu ñëpp daal waaw maanaam oto point yi nga nga may laaj otopon yi waaw baax na oto yi baax na de baax na wax dëgg yàlla ndax boo si jaare moom da ngay dem teewul nag embouteillage am na ba léegi moom embouteillage moom am na ba léegi Dakar mais nag oto yi moom wax dëgg yàlla moom baax na wax dëgg yàlla ku dee ak sa bàmmeel ndax di gaa yàgg nañ ko bëgg ah taximaan moom arrangé na leen trop même bu dul sax ku yàggat bi ku na la loolu daal laa ci xam waaw. cir circulation vétérinaire non wàññikuwul nag vétérinaire moom ba léegi boo autopont yi boo ko jëlee fi mu yem yoof fa lay commencé embouteillage fa lay commencé chaque jour nag chaque jour fa lay commencé autopont yi fi mu yem noonu fi mu yem noonu fa lay embouteillage bi commencé vétérinaire moom tout la tout chaque jour day xat ba Dakar même corniche day xat ndax benn allée la quoi benn allée la tout le temps day xat waaw mais nag autopont yi moom baax na moom vraiment baax na. maaleykum salaam ça va soxna si ngeen si jàmm ça va bien merci ah man moom génn naa si koor gi quoi dama leen bàyyi la koor gi rek instant nii moom mooy. bon man maa ngi tudd Mathias Mathias nañ ma woowee Benja laa sant Benja ah. ah. maa ngi dëkkee Liberté 6 extension mais am na ñeen tamit ñu koy woowee Sacré-Cœur 3. autopont yi autopont yi par rapport ak man su may dawal oto pour autopont yi ça am na impact bu baax si man. parce que limite samay transition yu may def axe bu may emprunté auto point dina ma arranger parce que deux heures de pointe la jaar foofu deux heures de pointe donc am na njëriñ vis-à-vis ak par rapport ak fu ma parce que gën na kii nu ta sax na laa ko mën a expliquer gën na yokk fluidité circulation bi par rapport ak si ce n'est pas les heures de pointe non problème yi jànkoonteel wala des fois problème yu may jànkoonteel mooy par rapport avec les heures de pointe heure de Je sais que samedi. Là. Et 13h, 13 14h, 15h. Voilà les jours de semaine, 17h, allant 17h, 18h. Circulation des bris par rapport avec l'autopont qui se trouve à Yundai. Les autopons ont une circulation de bris, voilà, de intensité bas, des cars particuliers, voire même des bus, nous avons des devis de nous. C'est des fois day indi problème par rapport avec la population qui vit ici parce que ay xale dañuy jéggi su nekkee vendredi vu que xale dañuy teel waaj sont dañuy force buntu kër des fois sen bali traverser. ñu obligé traverser de day car wala bus normalement waruñu jaar ci koñ bon à peu près la